macha allah marché bi moom neex na wax dëgg yàlla client yaa ngi ñëw te njaay mi macha allah séerul daal neex na moom waaw non non séerul moom man de li may jaay wax dëgg yàlla séerul ndax non non duñ ko yokk parce que xam nga la la jigéen ju ne jigéen ga te suñu moroomu jigéen wax dëgg yàlla sonn nañ il fallait que ñu jàppale leen ci ñoo ci mën a jàpp daal wax dëgg yàlla moo tax daal man ku ñëw wax dëgg yàlla boo ñëwee sa wax ma sa soxla. su ma ko mënee dinaa ko def du ma ko yokk moom su ma ko wàññil du ma ko yokk waaw. préparation tabaski daal mi ngi nii neexul ma sant yàlla ji ci yenent bi dëkk bi doxul xaalis amul te li waral dëkk bi doxul nag manifeste yi fi jaaroon la manifeste yi métti yi daal bakkan yi bari rot ci moo tax réew mi doxul dëkk bi dëgër na ñun ñuy jaay gis ñu ko jënd xar seer na yëpp seer na dëkk bi daal neexul manifeste yi moom. buñ ko bàyyee moom bakkan yi deret yi fi tuuru moo bari moo tax réew maa ngi ni lépp a ngi dëgër ci kàttanu yàlla ndax fitna moom yàlla moo ko ne ko tere fitna fu mu am rek lépp a yàq te jamono bi fitna bi fi nekk politiciens yi fitna biñ fi doxal moo tax lépp yàqu dëkk bi naqar na lool ci kàttanu yàlla moom daal nañ adversaire manifesté yi bàyyi fitna bi ndax Sénégal yi dañoo bëgg julli ci jàmm jënd seeni xar am seeni xotti doom préparé seen tabaski man daaw dama jaay ba doyal waaye bu ma ba tey gis ma na dama looy jaay koo wax mu ne dëkk bi neexul kan kañ la dëkk bi neexee ah nañ ñaan jullee jàmm rek waaye daal doy na waar ngir yi daal moom politiciens yi la ñuy waxal nañ bàyyi fitna bi ak xale yi ñuy rey ndax métti na moom doomi jàmbur yi dee ci manifeste bi diggante Adji Sarr ba ndëgët ak Sonko ken xamul la xaw ci Sénégal Sénégal daal toj na kon wasalaam jërëjëf waaw oh, comme d'habitude rek comme daan demee chaque année ren moom xam naa ne lay xaw a gën a métti quoi tuuti parce que problème mu soble bi daal xam naa ne moom mooy posé wu ndax actuellement nii nii soble bi fi nekk mooy soble bu xonq bi importé xëy na amut donc te bi fi nekk man jàpp naa ne du mën a satisfaire besoin population bi quoi du mat actuellement nag ñu ngi koy jaayee saako 15000 ñu ngi ko jëlee ci àll bi nag ay di ko jaayee 15000 di jàq saako bu ne téeméer xam nga loolu moom du liggéey ñàkk pexe rek la. seer na daal la loolu loolu mooy waaw seer na daal vraiment seer na quoi bon ñi ngi ñëw ndànk-ndànk ndax dafa seer actuellement moom dafa seer moom loo mën dégg dafa seer moom su gënoon yomb daa xam naa ci la client yi gën gaaw a ñi ngi ñëw nag moom ndànk-ndànk nag parce que amuñu pexe comme que y pas solution fi rek ci ndax gis rek gis rek gis ah xam jours jours man japp na ni dañu metti ci population bi trop trop trop japp na ko nak japp la nak woru ma yaakaro ni tamit tangay dekk bi ci jamono yi passé waral na li yep wala waaw parce que soble bi ni ni tangor tax na tamit bar na ci lu yaqku ndax bu fekkon dal soble bi conservation bi gëna bax ni melni peut-être mom buñu agge tabasco la korté dina mëna couvrir reum yep problème dal dama japp ni ci problème yi am ci baykat yi moy conservation bi leen conserver sen bi mo awugul yoon bo won yoon réew mi xëy na ñu ngi ñoral loo xam te ne war naa mën a couvrir réew mi quoi béykat ñu ngi ko ñoral mais actuellement ni soble bi moom commencé na yàqu ndax tàngoor bi te daa bëri lu ciy nëb ba pare ne seer na seer na daal loo ci mën a dégg daal seer na xam naa waaw seer na moom moom moo gën a seer daaw moo gën a seer daaw daaw pomme te soble bi ñu taw des na fi ah. ren nag yaakaaruma ni sax dana mat ba fi des yaakaaruma ko nag kon euh, client na gaaw ku bëgg ku bëgg loo ku bëgg loo loo toog tabaski daal loo def sam xar ñëwal jënd léegi sinon da nga dem ba ci dernier mois bi boo mu changé boo jënd crevette doo am loo boole xar moom wala da ngay lakk noonu lekk rek. Ah, sëñ bi waa TDV kon ñoo ngi lay jaajëfal. waaw yàlla yàlla doon leen xéwal sutura dafa leen ngeen doon télé ñëpp di ko suivre partout dans le monde yàlla yàlla doon sutura jërëjëf. Adja Diaw. Adja Diaw nga tudd. waaw nga bi. tabaski gi ak ah mi ngi nii de marché bi daal la nii de pas cher moom instant yi dara yomb. mi ngi noonu da nga nekkoon doon jënd soble ak pomme de dama doon waxaale da doon waxaale dama doon sama nijaay ji laa doon waxaale soble beeg pomme bi ba prix yim la jox rek baax non prix yi xaw naa seer dafa yokk mais xam naa tamit lay lay aha moo ak daaw ban moo tane daaw presque booy seet daaw moo tane daaw moo tane moo tane daaw bi dara yomb fi lépp a seer